wa naawuzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiaati acmalina man yahdi llahu fala mudilla lah wa man yudlil fala haadiya lah bismillahi rahmaani rahim ci ndigalal Cheikh Abdul Fattah mi nga xam ne mooy jëwri ni sëriñ bi ni nga xam ne ni ko baaxoo daan ko defe ca ba Kazu tàmbalee ba tey jii te di kàddu yi nga xam ne moom lañu fiy wax jëmmi Cheikh Mouhamadul Fadil ci boppam moo daan def fu Kazu Rajab ñëwee moom ci boppam moo koy waxal boppam du ko waxloo kenn muy dana wax bis bi ak li ko waral dina tudd saar woowu nga xam ne mooy moo waraloon al israa wal te mooy bis bi nga xam ne ci la Seydina Muhammad guddi gi nga xam ne ci la Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jógee Makkatal Mukarrama dem Baytil Maqdis jóge fa dem ci asamaan yi sunu borom subhaanahu wa jox ko julli juróom nga xam ne bis bii tey mooy anniversaire julli juróom julli juróom bu doon doom aadama dañuy wax ne tey jii la juddoo tey jii lañ koy fàttaliku muy li sunu borom subhaanahu wa taala wax subhaana alladi asra bi abdihi laylan min almasjidi alxaraami ila almasjidi al aqsa alladi li nuriyahu loolu sunu borom moo ko wax boppam kon sëriñ Fàllu moom ci boppam moo nu ko daan nettalil boppam di wax guddi gi ni mu demee ba egg ci ne na xam ne nag liggéeyab jullit mooy julli juróom liggéeyam jullit ab jullit amul benn liggéey bu gën a kawe julli juróom foofu la eggoon ba loola moo waraloon Serigne Touba digal ko digal lii moog Cheikh Mouhamadul Moustapha muy barabu julli juróom bii di jumaa ji ñu def ko ba xëy tey jii mu egg ci loxoom kero ba mu eggee la mu wax daf ne man de lañ ma santoon def naa ko wàcc naa tabaxal naa leen jumaa bindal naa leen kaamilu alxuraan ku bëgg jàng téere baa ngi ku bëgg jàmm yàlla jàkk jàkk man wàcc naa waxal boppam it ci lii sëriñ Cheikh doon wax léegi liggéeyal la ko fu ne waaye julli juróom ji li ma ko ci liggéeyal bariwul ko ko ci liggéeyal ndax lu toll nii ak yeneen ak yeneen yoo xamante ne bari na lool ba moo fi toogoon mën naa koo lim moo ko liggéeyal sëriñ Touba ci ay jàkk ak juma yoo xam ne jëmmi boppam alali boppam moo ko ca def fu Serigne Touba amoon lenn rek Serigne Fallou def na fa dara fépp na fu mën a doon ba loolu moo waraloon moom na mu jàppe woon Serigne loolu mooy fonkeel goo xam ne genn fonkeel gënu ko rëy barki démb rek laay déglu bànd boo xam ne lu yéeme ni wax jooju dafa doy waar mu ne man duma doom doom ju amul baay la ci moom laa ko mës a déggee man doom ju amul bàyyi la ndax duma doom ju bëgg a donn bàyyi tegaat ci Baye Cheikh Fall daal di wax ne moom taalibi rek la mu ne ko déedéet du ma itam loolu it kenn xamul lu mu doon mu ne ko du ma taalibi itam lu ma doon mooy nekk ci biiram rek doon ko rek loolu rek nekk ci biiram rek kon moom nee na doom du taalib mooy nekk ci biir Cheikhul Khadim Cheikhul ku nekk ci biiram moom ngay doon kon looloo tax mu tëyeem ndax nekke am Cheikhul Khadim moo taxawoon ci këram di moom muy moom loolu moom la Cheikh Mouhamadul Fadil nekkee woon ci sunu kanam ba wan nu boppam wanin woo xamante ne ñun ñëpp Cheikh Mouhamadul Moustapha mii mu Sëriñ Abdul Xaadir am na conférence bu ñu mës def fii mu wax ca wax ju am solo muy bari na waa joo xam ne romb na gi gis gii dugg ci biir kër gi sa bët xonq coy waaye boo génnee mu weex tàll loola muy waxi dëgg joo xamante ne kenn ku ne ci nu mën nga koo seere Cheikh Mamadou Fadil lii sëriñ Dame Dramé doon wax léegi loolu ñuy tuddee humaniste muy nit koo xam ni doomu aadama yépp nga yemale kenn ku ne la yàlla def ci moom ngay xool xooluloo diineem xooluloo lu mu gëm xooluloo dara la ngay xool ci moom mooy yàlla mi ko bind moom jëmmi yàlla ji li mbindeef yi loolu la doon xool moom la doon seet ci loolu la doon dox waaye Cheikh Mahamadul Amin mii nga xam ne moo fi nekkal Cheikhul Xadim tey nekkal ko fi noonee Serigne Touba noonee Cheikh Mouhamadul Fadil bëggee woon Cheikh Mouha Cheikh Cheikhul Khadim mbëgg googu day ku ne mën na koo seere ci moom jëmm la joo xam ne bëggul leneen xoolul leneen amul leneen lu muy jëmmi Cheikh Mouhamadul Fadil moom képp la bëgg moom dong la xool loolee nag warta jaaxal ku ne kon réalisation yi muy def tey taxawaay bii nga xam ne moom lay def tey ci wàllu gu nekk te xam ko lool nag. dama koy wax waxtu bu ne dama naan lii muy nekk nii bu doon bu doon apprenti dañuy wax ne apprenti wu na ba tey waaw apprenti wu na ba tey xam na li muy def fekkee na lépp dara ubbu ko lu ne boo ko waxee xëy na da lay déglu rek may la waaye lu ci baree baree bari moo la ko gën a xam yow mi koy wax ndax dafa fekkee lépp leen lu ci nekk man mii di toog naa mu di ma nettali yoo xam ne wax dëgg yàlla ci moom laa ko njëkk a déggee yoo xam ne ci yoon wi la yoo ay sew-sew la yoo xam ne xam na ko di ko wax ci yoon wi loo xam ne ku nekkutoo nag mag te di ko déglu doo ko xam kon moom apprenti bi sëñ la boo xam ne jàng na ci moom ba mokkal mokkal boo xam ne kenn mokkal mënu koo gën a kawe kon yàlla fi yàlla yàggal ba mu eggale yéenam yépp yi nga xam ne moom la fas yéene bu fi yàggee rek lépp dana sotti yàggal fi ñi nga xam ne itam ñooy njabootu Serigne Touba gii nga xam ne ñoom la uuf ñu nekk fi yàgg feek moom lool ba li nga xam ne jàppale gi ñu koy jàppale ak nekk gi ñu nekk ci wetam loolu ñu gën koo mën lool gën cee yàgg lool ci daraje Sëriñ Tuubaa wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu wa kullu aamin wa antum bi xeer